loo waaj doyul. waaw subhaanallah walhamdulilah wala ilaha illallah wallahu akbar la xawla wala quwwata illa billah euh, dañuy sant yàlla rek bu baax euh, di julli si yonent bi sant suñ ñaari waajur di nuyu fi ngeen ñu fekk muy Saalu Kanté coach bi ak yéen ñi nga xam ne yéen jël si ak euh, promoteur bi Prince ak ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi bàyyi xel làmb bi quoi ñu ngi si combat bi ñu ngi koy waajal bu baax a baax a baax a baax di ñaan suñu boroom jox ñu si ndam barke Cheikh Mouhamed. ginnaaw bi Euh, c'est le euh, promoteur bi nga xam ni le plus jeune promoteur mën nañ ko waxee noonu ci li nga xam ni mooy euh, arène bi mais mu siy def lu am solo di réaliser tamit ay combats yoo xam ne ji ay combats de taille la malgré les difficultés rencontrées par la saison deux mille dix-neuf deux mille vingt ci loolu tey ki nga xam ne mooy prince tëgg seen combat bi ngeen war ko amal le treize incha allah avril foofu ci arène nationale kon nekkul combat bu ndaw ci loolu tey yow bu fekkoon ni ñi nga xam ne ñoo jëm d'abord tey sa supporters yi. ak ñi nga xam ne ñëpp waa yoof la ñu jàpp ngor wakaam lébu gi laay wax sax ñu war a ñëw gunge seen doom lan nga leen di wax waaw damay lancé appel appel rek particulièrement sama ay mbokk muy sama mbokki baay ak sama mbokki yaay li ko daggee waa tund jandeer bi yëpp njar mburit njar tiijaan ak waa Morlan kër Njob kër Baaba ak ñëpp ñu nga xam ne am naa leen rawatina kunte yi li ko daggee ndànk guy yett sanc bu na ndeer ba jàll njaasaan di ñaanal suñu sëriñ Cheikh Albekaay wulu Cheikh Albekaay di yàlla guddal fanam yàggal ko fi Cheikh Mohamed Raphaël Kunta ak mboolem kunte yëpp Euh, di lancer appel si sama ay mbokk muy waa Ngor waa Wakaam waa Yoof gi nga xam ne ñoom laa am bu ma amee ndam Yoof moo am ndam bu ma ñàkkee ndam Yoof moo ñàkk ndam population bi supporters yi fépp foo xam ne nit mu ngi fa nekk di ma bégee na ñëw xam ne la treize dama soxlaa bés bi ñu ñëw en masse arène nationale la ñu feesal ko del suñ borom defal ma ndam si kaw sama adversaire Euh, ci loolu enjeu bi fi mu toll nii ku ne xam na nii du yomb euh, te sa diggante ki nga xam ni tamit moom nga war a jàkkaar lool yaakaar naa moom it du cuune ci li nga xam ne rek mooy arène bi euh, tey bu fekkoon ni yow am na leneen loo xamante ni war nga ko défier ci moom challenge am li nga xam ne moom lay préparé sa diggante ak yow yow nan nan nan ngay préparé noo moom combat moom. waaw pour moment de préparation bi moom moom li mu nekk moom la engagé moom la concerné man si li ma nekk maa ngi si maa ngi ñëw fii matin soir maa ngi dem suñu écrit di ànd ak suma ay coach di entraîner di def lépp lu nga xam ne war na ma si combat maa ngi si entraîner maa ngi ñaandu xam nga moom aussi maa ngi koy étudier si par l' internet di xool ay combat di ko suivre kon donc maa ngi si li ma war daal maa ngi si bu baax a baax sax est-ce que xam nga yow ni nga koy étudier moom it vice versa noonu la lay étudier. oui c'est très normal parce que combat lañ am ñu man a ak moom moom man lay waajal man aussi moom laay waajal c'est ça. mais am nga yaakaar ni combat bi dina yomb sa diggante ak moom. ah si kattanu yàlla bu neexee suñu borom moom gëm naa ne combat bu neex la bu neex lay gaaw bu neex lay doon bu gaaw euh, bu yomb aussi ma daan ko si kattanu suñu borom. Mm-hmm. mais sa waay dégg naa xarañ na de. waaw mais lam moom ku ne am nga loo man rek am na lu mu man quoi. Euh, ci loolu physiquement nii ñu ngi la fekk ci salle bi yaa ngi def ay yenn séance d'entraînement euh, autre léegi yow euh, ci état de forme bi xam nga nit ku nekk li muy yëg ak temps bi nga xam ni moom la def entraînement pour ko combat moom moo xam est-ce que yow fi mu toll nii yaa ngi nekk ci en état de forme actuellement boo xam ne yëg nga ko sa bopp. si bien sûr maa ngi si parce que combat bu nga man avant ngi entraîné parce que man làmb mooy sama métier maa ngi entraîné matin soir maa ngi doon nekk parce que bokkuma mbër yu nga ne tey bu ñu amul combat du wala bu amul combat du ñu man loolu la ma ñëpp xamee te laay nekk ba ker baa may bàyyi làmba xooli leneen kon donc bu fekkee état de forme moom dama siy nekk à chaque instant baisse de mën na am parce que forme neexul téye quoi mais en pour ce moment moom may préparer combat mu des deux mois. alhamdulilah quoi am naa yaakaar bu baax sama bopp. Euh, xam nga des fois euh, mbër yu bëri dañuy nekk ci li nga xam ni euh, mooy salle de musculation yi di def ay entrainement matin soir mais dafa am loo xam ne c'est très important te dañ koy négliser muy côté diététique bi maanaam li ñuy lekk nga xam ni mooy nekk en rapport ak mooy seen forme. wala seen condition physique est-ce que loolu am nga ay spécialistes yoo xam nga xam nga entraînement moom dafa bari ay façon surtout musculation dafa am ay ñoo xam ne ay musculation pour euh, pour am forme ni être Rambo la ñuy def am na xam ne dañuy def euh, nekk ay compétiteur man si coté boobu laa nekkee quoi voilà man musculation bi may def dafa ànd ak physique dafa ànd ak suuf si dafa ànd ak escalier yi ainsi de suite ainsi de suite quoi musculation boobu laa pour alimentation bi nag xam nga mbër bu ndaw moom li mu am rek lay def seulement dina moytu yu nga xamante ne mën na kaa indil ay gaañu gaañu quoi mais ñu ngi lekk li ñu am ah, xam nga li nga xamante ne daal moom lañ am ñu ngi siy dund. mais mais mais mais mais est-ce que am ngeen koo xamante ko xam wàllu régime. surtout côté sportif yi mu lay xelal ci côté boobu. si am nañ ay médecins dañuy am ay médecins parce que chaque chaque année dañuy renouveler suñu licence am ay certificat d'aptitude bu dul loolu itam am nañ médecins yoo xam ne ñu ngi ñuy suivre di ñu bindal ay comprimés fatiguement pour récupérer relaxer pour suñu yaram bi bañ a am benn yenn gaañu gaañu yi quoi. Euh, ci loolu tamit ci yenn salle de musculation yi euh, euh, li ñuy wax ay protéines. produit yoo xam ne ji da nga koy naan mu gonfler sa yaram wala mu jox la benn forme bi wax ne c'est pas naturel est-ce que yow di nga faral di employer produit yooyu. si protéine xam nga protéine complément alimentaire la. Mm. pour fas lekk bi nga amul ñu complété ko si protéine bi kii mais gars yi yenn yi ñuy naan c'est pas des protéines. yee xëy na dañ koy naan. après ñu ñëw wax ne protéine la mais du protéine mais protéine créatine c'est bon pour les sportifs. Mm-hmm. mais yow am nga si maanaam ràññee goo xamante ni ji du n'importe quel comprimé nga jël di naan di dem sa yoon pour funki. non man <laughs> mel ma noonu quoi mel ma noonu am na protéine yu ma tàmm jël moom laa nekk depuis ma commencé parce que ñëpp état de forme bu ma xamee boobu lañ ma xamee moom laa nekk di utiliser moom laa use. Euh, euh, yow tey nii nii nii ak combat bi ak waajtaay yi fi ñu ci toll nii nii nii tey su fekkoon danga am benn message boo xam ne ji da nga koy jox ñi nga xam ni ñooy organisateurs yi ak supporters yi surtout ci bésu làmb bi nan la ñu war a dikkee ban xalaat nga leen di jox. waaw supporters yi surtout nañ ñëw ak euh, non violence euh, waa Yoff gi nga xam ne ñoom laa am ak fépp sama supporter nekk di leen lancer appel que ñu ñëw parce que lamba ji de euh, ñu pour ñu jàppale mbër yi parce que supporter buy ñëw stade pour jàppale mbër ma mais pour nga jàppale sa mbër il fallait ngay ñëw en masse ba pare ngay ñëw avec la non violence léegi boo ñëwee noonu supporter sa mbër sa mbër wane jom fulla ngor fayda suñ borom defal kandam mais nag di supporter mbër mi toog sa kër moom jàppale woo sa mbër léegi damay lancé appel surtout si autorité yoo fois yëpp particulièrement le maire monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ak ñëpp ñu ma àndal ay Abdou Naar ainsi de suite ñëpp ku ma tuddul dama la fàtte ñu jënd billets yi maye kaar yi supporters yi ñëw parce que j'ai besoin de ça pour relever benn affaire bu nga xamante ne Yoff moo ko soxlaa quoi eh, loolu kese la Euh, ndax ki nga xam ne mooy seen tête de file di Malick Niang ñëpp xam ko tamit euh, mu xarañ lool ci arène bi est-ce que mi ngi lay épauler maanaam mi ngi lay soutenir ci préparation combat bi. si Malick mu ngi yof parce que instant bi ñun euh, bari nañ ay combat yi ñuy préparé mais booy xool combat Modja bi daf si nekk un combat bi nga xamante ne c'est un combat capital léegi combat Modja ñu ngi nekk di ko préparer ànd ak suñu ay rakam moom toujours. mu ngi si nekk te tey Malick lu mu commencé di def nii ñun ñi ngi nekkoon ak moom gëjoon nañ ko gis mooy toujours mu ngi assister les entraînements même les contacts ainsi de suite ainsi de suite kon donc am nañ yaakaar bu baax a baax a baax euh, am na lu mu ñu yokk daal. Mm-hmm. contact yi si plage bi ngeen koy def wala ci biir Yoff. non am nañ lieu bu ñuy entraîner quoi. Mm-hmm. kooku moom da nga koy garder quoi parce que <laughs> loolu est-ce que bu fekkee ni euh, par exemple li nga xam ni moo jëm ci wàllu cachet yi li nga xam ni tamit moo jëm ci wàllu sponsor bi est mbër yu bëri di ko ñu leen koy jiñ naa mbër yi ñoo yokk cachet yi mbër yi sponsor yi ñëwuñu moo tax lamb ji doxul yow ban jàngat nga ci def. waaw xam nga xam nga lamb moom sponsor moo koy doxal quoi te promoteur yi fi nekk yëpp A ba kenn amu si xaalis boo xamante ne mën na ko fay mbër yi pour cachet yi gars yi di wax. kon donc dañuy lancer appel si président Macky mu pousser sponsor yi que li ñuy génn fii si dëkk bi ñu koy delloowaat si dëkk bi parce que tamit fayuñu ay fayuñu ay guinéen ay ivoirien ou ay yeneen dañuy fay jeunesse sénégalais fay cachet yi kon donc li nga xam ne ñun ñoo koy fay suñu ay impôt di ko jënd seen ay produits mais gàcca ngaalaama nañ ñu ko delloowaat si jeunesse bi sponsor bi mu pousser leen ñu ñëw sponsoriser lamba ji euh, sponsoriser sport sénégalais yëpp muy lamba ji muy football bi ainsi de suite ainsi de suite quoi parce que lamba bu sponsor amul rek mbëri duñ am promoteur duñ am luñ fay mbëri kon chômage bi day gën a yokk rek quoi ci loolu tudd nga côté sponsor bi mais est-ce que tamit yéen cachet yi nga xam ne moom lañ leen jiñ li ngeen di laaj day bari nangam nangam euh, xam naa yow lañu ñu la jox bari na de instant bi. non tane na rek. waaw ndax man bàyyi bàyyi nëbbatu bi ma jox dinaa si defaat de plus pour combat bi. Mm-hmm. waaw kon l'essentiel honneur bi moo si am solo quoi. waaw parce que ndànk-ndànk mooy jàpp golo si ñaay loolu la mag ñuy wax kon donc combat bi combat la mooy jël bu nga xamante ne dama euh, si kattan suñu borom dama ko war a daan pour mrg si kaw. Mm-hmm. yee loolu la ko ci émerger boobu dañ ci euh, rebondir euh, wax Modja fan la teg bëtam incha allah buy ko yàlla mayee kattan ak wér fekkee pour réalisation ndax bëtam mu ngi am yaakaar un jour mu tekk ci roi des arènes. bien sûr pourquoi pas je veux être roi des arènes un jour bàyyi sax ak moom. yaa def lu kenn deful. Mm-hmm. incha allah ba pare bàyyi ko yóbbaale ko. waaw incha allah rabbi. Mm-hmm. Euh, ci loolu tey bu fekkoon da nga am benn conseil boo xam ne koy jox sa moroomu mbër yi ku ne xam na ni instant bi nii nii nii làmb ji ñu ngi naa dox na ñu naa doxul te yi ñu ngi entraîné ba ceene ba wow te xaj na seen profession wala seen yaakaar yëpp ci làmb ji lañ ko teg ginnaaw nag làmb ji doxul yow boo amoon tey loo leen di xelal. Euh, am nekk ci mbër tamit du tey nga am métier wala nga am leneen loo def yow ban xalaat nga leen di jox. waa làmba ji dox na ah, doxul moom xam nga làmba est àdduna lépp noonu la noonu la demee quoi. da ngay gis ñoo xam ne dañuy liggéey maçon ñii di liggéey menuisier ñii dañuy am ay chantier ñii duñu am ay chantier c'est que mbër moo ñàkk a fayda dafa bëri ay mbër yu ñàkk a fayda da ngay gis dala da leen di dara ñuy coppas télé yi di yuuxu di yalwaan di ñaan ku ne jéppi leen ku ne xeeb leen nit da ngay am fulla si li ngay def nga gëm ne suñu borom mi wërsëgal euh, euh, Sadio Mané moo wërsëgal Balla Gaye de kon donc li ngay nekk di xel ñaar di ragalax lii doo si am dara ñemeel ko yàlla moo lay moo la war a may te puis moo lay may lim lay may nag mën naa bari umu tuuti làmba ji dox na si benn côté cachet yi yenn ñi ñu ngi siy gis seen bopp làmbaj doxul si benn côté ñenn nañ bëri ñu parce que dafa am ay mbër yu nga xamante ne ñoom ñooy tere bëri seen bopp tere bëri seen bopp bi sa morom ngay yóotu keneen ku nga xam ne du morom xam nga yow am na ne yow yaay sonal sa bopp voilà problème choix des fois daf siy am des fois day am ñoo xamante ne tam seen adversaire duñu leen ñeme ñooñ pour ñu am combat du yomb des fois day am ñoo xamante ne problème popularité lay doon boo leen tëggee itam duñu la indil dara léegi nag mbër mi yow yaay xam sa bopp handicap bi nga am bu fekkee problème choix la nga def li nga xam ne mooy l'essentiel nga jël ñi nga war a bëril nga bëreeg ñoom bu fekkee amoo popularité loolu da ngay xool beneen facette si c'est yow mbër nga bëgg a doon nga dem créer nan ngay indee ay nit pour super euh, promoteur di la tëgg bu fekkee ne gars yi ñoo la ñemewul nag non da ngay wàññi ni ngay def waaw <laughs> loolu am na solo kon euh, Modou ci li nga xam ni mooy sa euh, euh, maanaam profession naa la ko mën a waxee quoi ndaxte moom nga jël comme métier pour bëgg si suturlu tamit bëgg si teral say waajur comme ni ko mbër yi waxee loolu mën nañu wax kañ la Modou dugg ci làmb waaw waaw man man saison 2011 2012 laa bëre sama premier combat waaw mais kañ nga commencé maanaam lan moo la inspiré waa di bëri si mbappat yi di commencé maanaam coxantu. waaw ay 2008 2009 waaw si laa commencé di bëri si mbappat parce que dañ doon wàcc xam nga yoof dëkku lébu yëpp boo fa nekkee soit boo mënul football di nga mën bëre yooyu moo fa am parce que dañuy fowee si taatu place bi quoi loolu moo ma inspiré si bëre man fekk suñu papa bàyyi ngañ mu fekk muy entraîné ay xale man aussi ma ñëw intégré moom tamit maa ngi koy sant bu baax ak staff écrit Yoff bi yëpp parce que boo fàttale ko ren jii ñun ñoo jël meilleur écrit numéro un c'est pas facile voilà kon donc nag alhamdulilah la ñuy wax quoi sant ak yàlla parce que lépp liggéeyu staff bu bees la rek le président Baytiir ak ñëpp ñu nga xam ne ànd nañu ak moom mooy njaag parce que moom màggee kon donc moom moo ñu def ay mbër quoi mais remercier nañ si staffu écurie Yoff bi xam nga mag day gis lu lu lu xale dul gis bi ngeen nekkee ay booy noonu ñëw di bérantu moo xam ñu boole leen ngeen di bëre wala ngeen di football si gis booy yoo xam da xam ni kii ku ko suivre dina am ndam si li muy def te loolu xam naa loolu moo la daloon ci bàyyi ngeen. waaw waaw waaw loolu la. mañ la gis ngay bëre say morom mu ni mu jam yi ku ko topp dina nekk mbër. si wallaahi wax dëgg yàlla bi aussi mu favoriser ma quoi am na ñu bari ñoo xam ne demoon nañ sa ba xama du woon kër dama fi man wala dama nanga mais xëy na yaakaar bu mu amoon si man la maa ngi koy ñaanal suñu borom yaakaar boobu bañ tas euh, ci loolu mën nañu wax bi nga commencé 2011 di commencé am ay grand combat ak léegi ñaati victoire nga am ak ñaati defet man am na 12 victoire ak cinq défaite waaw parce que dama bokkoon si benn tournoi boo xam ne arena tour lañ ko doon wax bon bi ñu ma si dugal sax am na ñu nangu woon am na ñu bañ parce que ñooñ moment boobu du ñu woon sama ay morom dama jóge si moo ma poussé sax ma am ñaar defee yoo xam ne dama ko tegle woon mais à part loolu moom alhamdulilah sant naa borom bu baax. arena ban position nga ci am. quart de finale. quart de finale lañ la éliminé. waaw waaw quart de euh, li ñu jagle ci waxtu mi ngi dem daanaka jeex euh, tey nii nii nii nii bu fekkoon ni da nga am loo xamante ni ji moom ngay lancé comme message. jëme ko ci waa CNG bi wala kilifa yi nga xam ni ñoo jiite dëkk bi te dëkk bi ku ne xam na ni metti na te jeunes yi macha allah bëgg nañu liggéey emploi bi mooy loolu euh, ban message ngay changé ngay autorité yi. waa ñëpp muy CNG ni mu jiitee làmba ji muy président Macky Sall ni mu jiitee dëkk bi yëpp nañ am yërmande quoi ndax lu amul yërmande rek neexul xam nga nit ki boo ko bëggul doo ko yërëm. te koo yërëmul doo ko muñal kon nañ am yërmande rek parce que njiit dafa metti quoi wax dëgg yàlla c'est pas que ñoom liñ jiite mën nañu ko suñ borom rek la ñu ñaan mu dolli mais nañ am yërmande si liñ jiite parce que xam nga tey mbër bu fayee ko 100000 nga dagg ka 20000 kooku ah la dese quoi lu la yóbbu këram parce que lamb tam bu ñu koy def pour am si dara la c'est pas que dañuy def lamb pour perdre muy président Macky Sall muy président Aline Sall parce que ñaar ñooñu ñoo ma jiite ñoom bi yërëm mbër yi quoi. Euh, tey nag euh, li ñu tàggatoo sa adversaire mi ngi nii di la seetaan xool ko caata ngi nii mi ngi nii di la gis xool ko bu baax ba ragaloo ko voilà waxal ak moom lan nga koy wax. caat waajal loo waaj doyul maa ngi wàcc ca buy bés baa nga ñëw def fulla fayda si kàttan suñu borom ma daan la nga dem ñibbi. Mm-hmm. kon mu nekkoon euh, ki nga xam ni mooy Modou jaa nekk ci écurie Yoff euh, bi nga xam ni écurie bu mag la lekk euh, ren sax ñu sacré ñu sacré leen meilleur écurie de l'année 2019 waa Ngemba Door organisé woon ko foofu ca place ndëng ndëngu waaw njëw mu nekk loo xamante ni ji yaakaar naa ni waa yoof yëpp kontaan nañ ci mais ahlu yam laxul ahlu làmb yëpp tamit teewoon nañ fa mu nekk sar mu nekkoon sargal bu mag a mag a mag kon ci loolu mbokk yi Modou Dia lañ leen indiloon muy préparé combat am digganteem ak adversaire di caat le 13 lay doon fële ca euh, arène nationale incha allah ñu ñaan supporters yi ak euh, amateurs yeek ak lu làmb ak ñëpp bu kay ndarate combat boobu ku fa ñëw di nga gis spectacle boo xam ne ji incha allah doo ko réccu boo daggee si billet kon ci loolu rek ñu ngi sant ñi nga xam ne ñoo ñu doon suivre di sant tamit euh, suñu équipe technique bi ñu àndaloon ñëpp mu chauffeur yeeg caméraman yeeg ñëpp rek Mbaye Kabe ak sëñ Modou ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar bu baax baax baax di jaajafal ñi nga xam ne tamit ñooy mbokk yi ñuy suivre à travers votre chaîne préférée Sénégal 7 TV